mais waa yeewu askan bi Ousmane Sonko gisuñ ko dégguñ ko. lan nga nga ne sànq affaire Touba bi di nga ciy dellu si lan lan nga ci bëgg a wax. non xam nga affaire Touba la la visite de Touba la. affaire buñ daan dem dañuy oo ñëpp ñu ànd dem lii am dafa yéex ñaata fa Ousmane nekk nekk grève de faim ñaata fa nekk grève de faim dem xooli loolu. démb lañ doog a dem encore que boo jógee Touba mais politiquement war nga mën ay action mais Habib Sy a promis une une grande déclaration. déclaration dans les dans les, les jours à venir déclaration rek mais lan nga bëgg mu def. dañoo jëm. <laughs> lan nga bëgg mu def lan jëm et puis pourquoi ngeen di insister dañoo war a ñëw c'est-à-dire xam ah, nga ce que je comprends pas ñoom nee nañu séparé ak yéen. ñoom woowatuñu leen conférence de presse boolatuñu leen ci dara c'est comme ce qui c'est l'épisode du parti socialiste bañ leen daxee euh, à l'époque ngeen naan parti socialiste kenn mënu leen ci dàq mais à la fin de la fin ba ngeen waree dem euh, ay élections demeewu leen bannière parti socialiste parce que mënu leen parce que vous n'aviez plus la légitimité aujourd'hui tey yéen mënatu leen utilise dem dem élection ci bannière ci bannière wu yeew yeew yeewu askan bi ñoom booletuñu dara amul kenn kuy dem élection ci bannière yeewu askan bi présidentielle voilà si ah, sa ñu eh euh, ça peut être une possibilité tey yeewi askan bu leen neexee bu leen neexee ñu wut candidat ngemb ko coalition politique la waaw mais loolu léegi ma ñëw lan moo tax déedéet ma ñëw rek soxna si lan moo tax o départ ba ñu créé yeewi ñu ne buñ eggee sa présidentielle ba ku ne def sa bopp mais mën nañu revoir charte bi loolu moom euh, euh, éventualité politique waaw léegi ñaata ils peuvent revoir la charte ñaata ñaata ñaata ñaata si ne candidat si ah. biir actuellement ba tey rek. waaw ils peuvent revoir la charte mais xam li nga xam ne yow fiction la rek. fiction mën na waaw fiction politique la. mën na nekk la politique c'est de la fiction nangul naa la ko ah? man non uy ma man man man li ma gënoon am un candidat unique man parce que pour man dama jàpp ne fi ñu jëm buñ dajaloo am nañ chance pour gagner man ma si woon tey. Yewwi am un candidat. mais pourquoi ngeen di accroché wu dans Yewwi. non prenez votre chemin. non non qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce qui se lan ngeen di perte boo leen jógee Yewwi. dafa wax la la expliqué. waaw dafa loo xamante ne ay principe gis nga yow sa jaar-jaar hmm? na loo xam doo ko nangu yow xam xam naa la nit ku baax nga amoo sax jot yenn yi pourtant des fois nga dem tribunal yóbbu yóbbu ni tribunal diffamation wala affaire yooyu xeex ak moom. parce que question de principe la rek mais mun a dama ne la Yewwi Askan bi ñun bi ñu koy taxawal ñi fa nekk la dañu dàq ñoom bokkuñ ci woon ne tey jëloon fa gën a xëy ma ñëw ma ñëw ma baax leen nee na locataire damay daaxee borom kër <laughs> yow ma ñëw bi ñu créé Yewwi xam nga dañu ñëwoon Pastef taxaw pur PDS yéen fa tawloon foofu sax naa si dugg ci pur tuuti parce que pur mooy allié traditionnel naturel bu taxawu Sénégal 2017 déjà man bokkoon naa ci ñu daan dem di négocier ak Issa Sall Cheikh Sarr Cheikh Ndiaye Babacar bi pour ñu créer coalition taxaw ak pur parce que taxaw ak pur taxaw ak pur c'est même pas les appareils politiques c'est deux hommes si Moustapha Sy Khalifa Sall ay mbokk deret ay xarit nag wax boobu moo gën a ratax diggante pur ak taxawu Sénégal moo tax pur ak taxawu amuñu problème bu leen indi problème non non la rupture est consommée pure aujourd'hui et plus proche de Pastef loolu ngeen foog que de Taxawu loolu ngeen foog na ko il a fait des pieds et des mains pour rencontrer euh, Serigne Moustapha Sy amul suite Khalifa Sall il continue à assumer sa relation ak Serigne Moustapha Sy mais gëj na gis sañ sëñ Moussa Fassé ba ngeen demee dialogue sëñ Moussa Fassé dafa ne euh, nañu moytu juum wala ñu nax leen mais il leur fait confiance. mais très bien xam nga loolu. Youm est plus proche de Ousmane Sonko. aujourd'hui que de Khalifa Sall. c'est tant mieux non dama l'expliquer. c'est du factuel non dama l'expliquer. moi je parle d'appareil dama ne la ñun bu ñu ànd ak pur kenn suñu àndul ak pur ñun bu ñu wax ak pur. Cheikh ak pur kenn ñoom Cheikh ñoo pur sëñ Moustapha mu defal xel sàll li may nekk prison man xam naa ko parce que les messages qu'il envoyé chaque lundi maa ko doon dugal gën a bi daf ko taxaw dëgg ñoom ñaar bu affaire politique boolewu leen loolu moo am diggante euh, euh, militant pur ak militant taxaw même sax si diggante bi sax am sax kersa ci militant yi dañuy sax dañuy dañuy soppante day am sax kersa. mais dàq nañ leen yeewi te pur ànd na ci. dama ñëw rek damay expliquer dàq yeewi boobu laa bëgg ma xamal la ne par principe ñun mun ñoo dàq yeewi. mais amu leen amu leen voie de recours dama la expliquer yaa seen charte bi prévoir benn voie de recours xam bi <laughs> mooy. waaw dama ne la bi ñu créé euh, yeewi askan bi xam nga na coow wala. Mhm. lan ma doon coow li. PDS. Euh, déedéet sa bokk. non PDS dafa ne du dugg parce que ak ñu d'accord c'est normal ñoo ñu dem mais ñeneen ñu nekk foofu gox tey dañu kaas naan wuy dañu beddi boole wu ñu. dañu ah, wax ay quatre grands ay trois grands. Thierno Bocoum contesté na loolu. Thierno Bocoum macha allah sama xarit la sama la dem naa këram dafa deux heures de temps ñu waxtaan ma ne ko Thierno damaa bëgg nga ñëw dugg ci coalition bi leader nga. dëkk parcelle yaa fi nekk naturellement xam nga ki laa mujj wax ci la bokkum ba may dem kan Cameroun final bi mu ne ma grand il faut ramener la coupe on ne ko fais-moi la promesse si on ramène la coupe nga dugg Yewwi Askan Wi muy rey ñuy kaf parce que man képp ku am valeur nekk talent dama lay jëli indi la dama bugguñu ànd ki moo tax ñun taxawu Sénégal instant bi bu ñu lancé suñu coalition électorale fépp fu nit nekk di doomu réew mi ku baax ku tekki ku am valeur mën naa la seet. mais ñu ànd